isiobati.com et Isiobati. pour la défense des intérêts de Toubatoul donc euh, ñu ngi nuyu waa Toubatoul euh, ñëpp euh, di leen di masawu coono di rafetlu seen teewaay ñu jox kàddu gi nag moom dina présenté ki nga xam ne moo fi toogal département bu Tivaouane ci jafe-jafe ndox boobu nga xam ne. Modou Diouf bu Touba Toul am na lu mu si junj am na lu mu si wax. Euh, d'abord maa ngi nuyu ñëpp di lu seen teewaay maa ngi tudd mustafa Bassirou Gueye euh, jóge département bu Tivaouane commune bu Mérina Dakhar je pense que bu ma nekkoon bu Mérina Dakhar seen xel dina dem ci. président groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ay maire ñu ngi téye notam mu nekk suñu maire d'abord dañuy euh, féliciter d'abord les camarades euh, de multitude donc seen seen seen engagement seen patriotisme ak seen bëgg seen bëgg Sénégal à travers euh, notre frère Guy Marius Sagna mi nga xamante ni tey ci jàpp ndalam ci ndimbalam permettre nañu tey ñu mën a jàkkaarloo vraiment ak journalistes yi pour wax li nga xamante ni jafe-jafe yi nga xamante ni population rurale bi ñu ngi koy dund. Euh, je pense que du jar may dell dellusiwaat ci problème parce que Diouf wax na lépp problème ak Aquatech ak ak population rural Diouf dikk na ci bu baax dafa am ay problème xaw a spécifique ci laa bëgg a dikk tuuti rek ci département bu Tivaouane commune bu Mérina Dakhar bi nga xamante ni tey foofu laa jóge bokk ci benn forage bu nekk ci Arculor temps yëpp mu am ay jafe-jafe vraiment ñu nekk fa def trois points de presse ñu am ay jafe-jafe ak ak waa Aquatec damay commencer d'abord di wax euh, li ñu dajale fii tey ñun li tax ñu ñëw fii tey c'est très important dafa am solo ci dundu doomu aadama muy lan muy ndox nit mënul dundu sans ndox képp ku yeewu li ngay njëkk a soxla ci sa àdduna mooy ndox kon dafa am solo tey ñu taxaw di defendre intérêt population bi ci lu jëm ci wàllu ndox ak leneen ak leneen ñu commencé ko ci ndox te tey li ñu fi dajale mooy mooy ndox Mérina Dakhar nag ak Aquatech dafa dugg te depuis ba mu fa duggee ba léegi ay jafe-jafe la ñu am deux ans la fa nekk 2018 mais deux 2018 ba léegi ay problème mu ndox la ñu am li tax ñu am problème ndox dinaa ci dikk parce que comme ni ko Diouf waxee Agifor moo fa nekkoon parce que ku xam développement communautaire approche participative et inclusive bi war a am ak décentralisation bi ñu wax ni bu fekkee décentralisation dafa am communauté bi moo war a gérer tout ce qui est édifice et bien public dañ ko doon doxal normalement avant Aquatec di ñëw te amuñu woon benn jafe-jafe population ku yeewu di nga am ndox mu baax mu sel te waxtu wa nga ko war a amee heure ba nga ko war a amee ah ci kaw loolu Aquatech bi mu ñëwee ñu am ay jafe-jafe yu bëri damay dugg juste ci problème bi parce que du ma dellusiwaat ci détail pour bañ ko ak quoi Aquatech ñëw na mbir na daxaar bi mu ñëwee jël forage yi ñun waxuñu dara bi mu ñëwee mu jël dénk ko ay nit gestion bi parce que comme moom nekku fa mu jël gestion bi dénk ko ay nit nit yam ko nit yam ko dénk par expérience ñun xamante nañoo ak ñoom ñoo ñoom ñoo dëkk ñoo jàngandoo ñooy nekk mais ñoom par expérience kenn ku ne fa nga nekk fa nga jaar gis nañ na nga fa jaare ay ñaawteef mu nga fa def ay jafe kese nga fa bàyyi te ku nekk fa nga jaar tey nekkatoo fa te lu tax nga jóge fa tey sa jëfin moo tax nga jóge fa ak sa gestion moo tax nga jóge fa nit yooyu la Aquatech jël dénk leen gestion bi foofu nit yooyu di dund ci ndoddu askan bi Aquatech ñëw di défendre nit yooyu en même temps ñun non seulement dañoo bëgg moom mu dem ba pare moom mu ñëwaat aussi di defaa nit yi nga xamante ne daf leen faa teg tey muy gestionnaire ba fa nekk ak le ak benn conducteur boo xamante ni dañu xëy benn jour conducteur bi nga xam ne moo fi nekk depuis vingt ans deux mille lañ fa def forage bi bu ci loor ba deux mille vingt ñu xëy benn jour conducteur ba fa nekkoon ñu ni dañ ko fay jëlee parce que li tax ñu bëgg ko fa jëlee mooy xëy na gestionnaire ya fa nekk moom arrangé wu leen. parce que am na njublan guñ bëgg a def ak ndëngate guñ bëgg a def te xëy na moom du ci d'accord parce que ci askan wala dëkk foofu la bokk parce que une fois que ndox manqué daf koy impacté moom parce que am na loo xam du ko nangu te li ci te li ci li ci gën a doy war di waar aussi ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor gestion bi ñoom naanuñu sax ca forage ba fa lañ dëkk mais ci beneen forage dañu naan naanuñu ci sax ci forage ci loor bi fa nekk pour ñëw dugg ci problème spécifique bi nga xamante ni moo am foofu rek Mbérène dama koy leeral tuuti xëy ñoom ni il faut ñu jëlee fa conducteur bi nga xamante ni moom moo fa nekk ak waxte jàppale ñun dañ ñu jëlee ko fa. ñu bëgg ñoo indi conducteur boo xamante ni yor na fa trois forages forage bu mu fa forage bu mu yor jóge fa parce que la ko fay jëlee problème gestion la ak ak ak ak ak yorin gu ñaaw moo ko fay jële ñu demaat joxaat ko beneen forage mu jóge fa ndax lan wax yorin wu ñaaw ak problème gestion ñu xëy benn jour ñoom dañuy indi kooku jox ñu ko ñu taxaw ñu leen nag yéen nag vraiment yaakaar naa doy na. yéen non seulement la ñu bëgg ngeen jóge fi waxoon na ngeen indi conducteur boo xamante par expérience xam nañ jaar-jaaram loolu moom ne moo waral nag temps yëpp ngeen gis Mérina Dakhar ci télé yi ak ci réseaux sociaux yi ak fu nekk ngeen gis tey Mérina Dakhar temps yi ñu jóg di di di ko ñaawlu loolu bi mu amee ñu def suñu conférence de presse imaam ya na ca dëkk ba ak kilifa ya def di jéem a def médiation fexe ba indi fa directeur Aquatec directeur Aquatec bi mu fa ñëwee di waxtaan ak population yi mais jour boobu li gën a yéeme li mu wax mooy moment bi ngeen commencé conférence bi ngeen commencé def seen manifestation ak yooyu jour boobu la dégager ay responsabilité am ci forage bi mu ne lépp lu am ci forage bi nañ jàpp ni moom nekkatul responsabilité am bi mu koy wax ñëpp a ngi toog imaam yaa ngi toog jeunesse baa ngi toog jigéen ñaa ngi toog ñëpp a ngi toog donc yaakaar naa am na loo xamante ne tey bu fekkee waa Aquatech ñoo ko taxaw di wax ñun yaakaar naa daf ñu yombalal suñu xeex loolu nag mu nekk loo xamante ni ñun en tant que défense défenseur des des intérêts de la population de Mérina Dakhar ñu jóg taxaw pour défendre intérêt yi nga xamante mooy intérêt Mérina Dakhar ci wàllu ndox commencé ko ci wàllu ndox nee nañ ba ba tax ñu ni leen gestionnaire yi moom dañ leen fiy jëlee benn ñaar conducteur bi du ñëw ci forage bi ñett suñu paree parce que c'est un combat ay combat la c'est un guerre par combat lañ koy def buñ gañee combat yi a jàkkaarloo am ni leen Aquatech foog parce que loolu mooy suñu objectif principal mais dañu planifier mais suñu objectif mooy à ce à ce que Aquatech dégage mais pour le moment li nga xam dafa immédiat mooy gestionnaire bi ak conducteurs yi moom du ñu leen may mukk ñoom ñu ñëw suñu forage di ko gérer. donc pour bañ a guddal loolu laa bëggoon expliquer mu nekk benn problème spécifique à na ndaxaar ñu koy dund en tant que en tant que en tant que jeune en tant que habitant de la population de Mérina Dakhar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 yobati point com. Eish Yobati